Salamu warahmatullahi wa taala wa barakatuh seex bi maa bu baax di la ziyara te di la ndokkeel di nuyu mboolem kuy suivre internet bi ñëpp maa lay di nuyu bu baax te di la ziyara te di la ndokkeel bu baax a baax a askan bi li tax ñoom di ko dàqantelee askan wi ñoo ma tuddee Thierno Sow askan bi ndax li waral ñu tuddee ma loolu xëy digal la jo xam dama jot ci sama wayjur bu góor waral ma nekk di jappale askan bi di leen laaj loo xamantene ne daanaka néew sama moro sëriñ buy laaj lu mel ni may laaj loola waral ñoom ñi dem ba tuddee ma taxawu askan bi ndax yombal gi ma leen di yombalal te di leen faj ba ñu wér bokkuma ak sëriñ yi nga xam ne dañuy laaj lu dul jeex loola waral tey askan bi dem ba tuddee ma Thierno Cherif saw taxawu askan bi ñu liwat ci tamit Thierno Cherif saw borom butéel bi waaw ndigal wayjur laa ci am ngir jàppale askan wi waaw Thierno Serif Sow si keppaaru way juróom bu góor la jaar-jaaram féete ndax ci keppaar way juróom bu góor la nekk bi mu demee ba am juróom-ñaari atit yàlla def ñu jëlee ko fi yóbbu ko daara mu nekkoon daare ngaay mexe yi sëñ Abibu Jóob yàlla na suuf woyof ci kawam bi mu ñibbisee 2002 ba tey mu ngi nekk barñi fii nekk ci keppaar way juróom bu góor kon Thierno Serif Sow ci wetu way juróom bu góor kese la nekk ginnaaw bi mu jógee daara tamit ci way juróom bu góor la dellu siwaat waa dama ko donn jàng ko tamit fas yéene cee jàppale askan bi ba ëllëg si yowmal xiyam si kàttanu yàlla ay de xanaa ñu tànn ci benn rek benn bi ma ci tànn mooy ñu waxtaan ci butéel bii waxtaan ci wàllu néew kàttan lan moo koy waral ak nan lay def ci doomu aadama ak ku ko bëgg a faj fan ngay jaar ba daal di ciy faju waa solution am na ndax ku mu neex tamit tey nga tàmbali tey gis solution tey waaw néew kàttan xam nga moom daanaka moo lëmbe dëkk bi ndax euh, ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi toll ci vingt ans sax dañoo néew kàttan ci wàllu sëy ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi toll ci trente yi dañoo néew kàttan paa yi dañoo néew kàttan ci wàllu sëy ak ñeneen ak ñeneen néew kàttan boobu nag moo sonal askan bi néew kàttan nag am na ñoo xamante ni tey dañ naa la man de su ma dee wax téléphone sax damay yëg sam bopp loolu néew kàttan la ci wàllu sëy am ñoo xamante ne ne naan la man su ma dee seetaan télé sax damay yëg sama bopp maanaam damay daal di daanu loolu néew kàttan la ci wàllu sëy am ñoo xamante ne dañ naan la man une minute bu mot mënuma ko sëy ak sama soxna loolu néew kàttan la ci wàllu sëy am ñoo xam ne dañ naan la cinq minutes bu mot sax mënuma ko sëy ak sama soxna loolu tamit néew kàttan la ci wàllu sëy ñenn ñi dañ naan la man deux minutes bu mot sax mënuma ko sëy ak sama soxna loolu tamit néew kàttan la ci wàllu sëy ñeneen ñi dañ naan la man bu sama soxna dee préparé bu nekkee ci waaj waajam di waaj balaa noppee man damay daal di daanu loolu tamit néew kàttan la ci wàllu sëy ñeneen ñi dañ naan la man semaine bi benn yoon laa ci mën a sëy ak sama soxna loolu tamit néew kàttan la ci wàllu sëy ñenn ñi naan la guddi gi man benn yoon kese laa mën a sëy ak sama soxna loolu tamit néew kàttan la ci wàllu sëy am na ñoo xam ne dañ naan la man sama xel sax du ci nekk loolu tamit néew kàttan la ci wàllu sëy ñenn ñi naan la man faw ma naan ay garab doog a mën a sëy ak sama soxna loolu tamit néew kàttan la ci wàllu sëy ñeneen ñi dañ naan la man faw sama soxna may ma départ ma doog a mën a sëy ak moom loolu tamit néew kàttan la ci wàllu sëy ñeneen ñi dañ naan la dina jóg waaye day nooy maanaam du dëgër ni mu war a dëgëree loolu néew kàttan la ci wàllu sëy ñeneen ñi dañ naan la man samam xel du ci mës a nekk loolu tamit néew kàttan la ci wàllu sëy ñii naan ndox mi day néew maanaam ndox mi li muy ñëw du bëri loolu tamit yàlla def na ni néew kàttan la ci wàllu sëy néew kàttan ci wàllu sëy nag ndoxum siti dina war a nit ki néew kàttan ci wàllu sëy hémorroïde dina war a nit ki néew kàttan ci wàllu sëy soppis dina war a nit néew kàttan ci wàllu sëy am na ci ñoo xam ne dañ daan mas masturber maanaam dañ daan fawee seeli awra loolu dina war a nit ki néew kàttan ci wàllu sëy ñii dañ naan la man weer bi benn yoon laa ciy mën a sëy léegi nag néew kattan ak ak tële tamit du benn ndax néew kattan mooy ki nga xam ne mënoon naa def 5 minutes wala mu mënoon a def 10 minutes dem na ba mënatul a def une minute bu mot kooku mooy ki nga xam ne daa néewle bokkut ak ki nga xamante ne nag mënatul dara. bokkut ak ki nga xamante ni moom dootul jóg jógle dootul def dara kooku mënatul dara loolu mooy ki nga xam ne dafa tële kon ñun dañu koy fajal ki nga xam ne daa néew kàttan carrément dañu koy fajal ki nga xamante ne tamit maanaam dafa néew le li mu mënoon mënatu ko am nag ñoo xam ne tey néew nañ kattan bu boo leen mayee soxna sax xale bu ndaw duñu ko mën a jël ndax néew kattan bi ñuy néew kattan loolu daal seex bi néew kattan bokk na ci li muy li muy def ci doomu aadama yi. solution bi mooy ku ko amee. nga dem hôpital ñu fajal lako wala nga dem ci ñu mel ni ñun te mañ ko faj ñu fajal lako bu fekkee ne nak man nit ki daf ko amé te ñew ci man lay solution ci man moy bu jëlé ñaari bouteille yi aajam faju mu wat ci kàttanam wat ci ak ndaw mën la mu mëna wala mu mën sax la raw la mu mënon ci kàttanu yalla ay semaine bari na dé man de ben semaine la koy faj ci ku am jëk ku am jabar ben semaine la la koy faje moy bés ba ba ci bo amul jabar nak manam ma dog la ko fajal ci ay semaine waye budé da nga yor soxna ci une la la koy fajal moy butéel bu mag bi ngay gis mom ngay nan ba mu jeex nga daldi am li nga soxla lepp ci kàttan yalla té bu jeexé jarul ngay ñëwaat ak butéel bu ndaw bi budé dee bu ndaw bi kaasu ataaye bam digg nga ci nan wallahi ak waxtu yi ku ci nan kaasu ataaye tay teud ci blal bu suba do teud ci blal sa soxna dina la laaj fo joggé ak fo jaar képp ngay pa ngay mag ngay lu mëna doon tamit boo naanee boo naanee butéel bu mag bi mooy ñi nga xam ne dañoo néewle carrément wala ñi nga xam ne mënatuñu dara ñooy ñëw doog a jël butéel bu mag bi ak bu ndaw bi bii nga di ci naan kaasu ndékkikaay suba kaasu ndékkikaay guddi wala nga di ci naan kaas à suba kaas à guddi boo ko booleeg bii wallaahi boo tëddee tey ci lal bu subaa doo tëdd ci lal wala boo xëyee doo liggéey te kenn sañu cee naan kaasu attaaya dedet kasu atay bam mu digg lay don diggu kas te boko nané naanee sey bu don waja tassi di normal barki sering Bamba bu fekke ne da nga nek célibataire yoro soxla yoro dara la lay dogo jox bi nga diko nan kuddu añukaay ba mu fees ak kuddu mew ba fess nga tangal ndox sotti ci xoyal bàyyi ba sedd nga doko nan ñaari yon par bes bo yewoo moy njëkkati sa biir bo de moy mujj sa biir bii nag célibataire yee ko moom borom soxna yi nag bii laa leen di jox lan moo tax du ma jox bii ku am soxna mooy li muy soxla dooleem dëgg-dëgg bii moo ko mën a jox ku am soxna bii moo ko arrange mais ku amul soxna nag ngay doog jox bii ndax moom soxlawul traitement bu gaaw bii traitement bi 3 mois lay diire bu ñetti weer yi motee nga mel ni xale bu ndaw boo amoon vingt ans di nga dellu ci cinquante di nga dellu ci 20 ans wala 30 ans bu dee nag danga yor soxna senegal yi gëmuñu di faju jëmale ëllëg xamal la lañ gëm tàmbali tey gis tey ku ñëw tey tàmbali tey gis tey boo yoree soxna it ma may la nga yóbbu boo tàmbalee tey gis tey yow ak ku mën a doon wallahi ak waxtu yi ku tàmbali tey gis tey ku ko naan tey boo tëddee cib laal suba doo tëdd cib laal man may Cerno Sërif Saw borom butéel bi man rek la yàlla def tey ci ab sëriñ ma di la fajal néew kàttan ci une semaine di la ko fajal ci butéel bii kese bii ngay gis néew ma la ñetti butéel néew ma la ñeenti butéel ngañ mii di ko defar sax moo ko wàññi ñaari butéel laa doon jox nit ñi waaye nit ñi dañ daan déclaré di ray seeni soxna ñu wàññi ko léegi di ko joxe benn butéel bu mag ak benn bu ndaw lii dañ ko togg duy reen mais garab la goo xam ne dañuy xëy di dem di ko witti di ñëw di ko togg dañu koy togg xay na beneen jamono bu ngeen fi ñëwee di ngeen dajeek ñu di ko togg waaye nag carrément des fois du ñu nangu di ko leeralal ndax samay moromi sëriñ yi dañoo mën a sàcc si wàllu xam-xam yii te des fois bu ma ko dee togg ngay séen ñaari garab ya ca nekk nga jàpp ñaari garab yooyu kese koy faj da ngay nax sa bopp te ñaari garab kese laa boole di ko togg tey ku mos garab gi sax di ko naan di nga sentir waaw boobu daana ma dal daana ma dal ci yeneeni garab ndax man néew kàttan daanaa ko faj ci nenu ganaar ganaar yi àll yi daanaa ko faj ci persi daanaa ko faj ci naanaa daanaa ko faj ci mboq waaye yàlla seede ne ni bi ma ko dalee faj ci butéel bi ba léegi loolu dalatuma ak noo mën a mel nag moo xam ngay mag mu am quatre-vingt-dix ans moo xam nga am cinquante ans ak kum ci mën a doon boo ko jëlee da ngay dellu ci say vingt-cinq gis nga ndaw li mës sa am jabar bu ñu ko mayee jabar te néewul kàttan néewul dara kàttan gi muy am mën a def ñetti yoon ci guddi gi wala ñeenti yoon ci guddi gi amaana sax mu di ci fanaan noonu lay mel ci moom day jël am li mu soxla gis nga traitement bi ñi ma ko mës a jox ñëpp bi ma ko dalee joxe essayé ko luy tollook at di ko doog a siiwal ci rajo yi ak télé yi mais atum yàlla bi ma ko joxee képp ku ma ku ma a jox dama jël sa tur jël sa carte d'identité jël sa numéro téléphone képp ku ma ko jox tey nga jëfandikoo ko tey soo ma woowul bu subaa man maa lay woo te wallaahi ku ko jël boo xëyee sa soxna ne la foo jaaroo man ku ko judduwaale aw ma ci yow xam képp ku judduwaale néew kattan jarul ngay ñëw waaye nag képp ku ma dab ci ab yoon ak nu mu la mën a dabee wala ñu takk la xala boo ñëwee mu deñ wallaahi bii ku ko tàmbali tey gis tey barki alquran ku ko tàmbali tey gis tey dama gëm sëm bopp xam la moo tax lan moo tax bu nit ki crisé wala mu feebar daanu buñ ko yóbboo hôpital même pas vingt même pas deux heures de temps mu ximmaliku mais ñun tamit sëriñ sii di faj dañoo war a am xam-xam yu mel ni ñoom la moo tax chauffeur bi mën a dawal otom ba mu kuule mu yóbbu moteur bi ci mécanicien mu segmenté waat ko man Thierno Chérif Sow góor gu tële boo ñëwee ma segmenté la mécanicien bi day segmenté moteur bu ko chauffeur gisee du xam ne ni oto bii dañ ko segmenté woon mécanicien bu demee bay am xam-xam boobu ñun lan lañ war a am man damay segmenté góor garab bu naturel la ngañ mii moo koy togg chaque jour moom mii moo koy togg mook soxnaam ndax du fi manqué te loo ci togg du doy man sërif dama koo gëm te bu ma neexoon faj bi may def ma yem ci lii kese waaye nag duma ko sax jox célibataire te yéen ñii di ma seetaan yow mii boo amee tey koo wóolu nga jox ko ko tey bu ko naanee bu gisul dara suba bul teg li day naan bi kaasu ndékkikaay suba mooy walla kaas azete suba kaas azete guddi maanaam bu yeewoo moom lay njëkk naan bu dee tëdd moom lay mujjee naan bii diggu kaasu ataay kese la ciy naan chaque guddi bu rombee diggu kaasu attaaya moog bii bu boobaa doos bi day foor du tëdd ci blal ku ko naan suba doo xëy ndax sa tubay ni muy mel kon bii kenn sañu see naan kaasu attaaya ba fees diggu kaasu attaaya kese te sax yenn saay day ëpp du garab gu muy wuti ji àll ba déedéet ci tool yi ñuy bayee ay papaaya ki ay limo ki leneen ak leneen ci tool yooyu laay dem di ko wut ñaari garab yaa ngi ci dëkk bi dew ma fenn taaluma sama oto di dem fenn garab yaa ngi ci biir dëkk bi fii damay xëy di dugg ci kër yi di ñaan di ma ko witt di ma ko may xanaa di sant tey ñaanal yàlla tey xam ne nag Thierno Chérif Sow borom butéel bi ñëw na te fas yéene defar kër yëpp ba kër yëpp defaru bu dee nag traitement bii ndax li may wax ci rajo yi laay bëgg a wax ci tele di ko wax ci internet bi traitement bii mille francs la mooy traitement bi nga xam ne soxna borom soxna yee ko moom deux 62000 francs la ñu fajal la ko ba mu wér ci une semaine bu dee traitement bii ma salibater yee ko moom 32000 francs la kon traitement butéel bi mille francs la marié laa koy jox duma ko jox célibataire bu dee bii mille francs la ci kàttanu yàlla chaque jour ñu ngi bari ñi 7 heures ci suba ba 19 heures ci ngoon yàlla na yàlla faj seeni aajo te faj suñuy aajo